allo Keba allo Omar. wa waaw. waaw waaw dafa daggoon sama téléphone bi la ma ne. waaw. ah ah kana kanaa da nga doon wala seet bi tey indiwul ndékki. dama doon lan. kanaa da ngay ndékki da ngay ndékki. déedéet ndékki na. ma ne. waaw ndékki laa xam nga ban heure jot yow. waaw ndékki laa may la teel na teel na. ah ana ana daggam ana daggam dugub ji dugub nu mel euh, jox euh, kii nu mel gubi. gubi lan. gubi dugub nu mel laa gubi. yow guub dugub bi eh, na dugub daal na guub dugub daal mel la mel danaa yow mu daanoo gis dugub guub dugub yow. maanaam dama ne bëri na yu say maanaam satukat yi ndax yéen a ngi sóoraale ak bëri na dugu bi say say. dugub ji dugub ji say yow nga bëgg si dugub bi say. lan mooy bëgg man dama laay laaj. dépassé dépassé yow yow yow xam nga da nga am problème. waxuma la ne déedéet man am man am problème de man am problème yow mi yaa am problème man dama ne ndax dugub ji say ji bëri na ak dugub ji nduxum ji bëri na loolu laa la laaj na ma waaw wala waaw nduxum nduxum nduxum ak say dépassé nañ ko waa déedéet kay ndax dugub ji fekk yaa ngi góob kay war ngaa gën ne dugub ji kay say say bi bëri na su ko defee nag ñuy satu ji man ci am wàllu loolu laa la wax ak ta ngeen loolu laa waaw mais mais mais xam nga xam nga kay satu waa dama tey dugub ji satu waaw déglu rek waaw da ngaa xamul waaw dugub joosay lu ko ku satu lu kuy satu lu muy demee dugub joosay waaw déer dama ne boobaa ngeen sóoraale yu xaw ngeen bañ ko góob mu set ndax ñoom bu ñëwee man si am dara xam nga da nga maa waaye dégg waaw mais ñun yu baax lañ soxla waaye léegi ñoom bu ñëwee lan lañ si am ñoom xam nga di nga nit lépp lu kenn ku ne la moom nañ ko ko jox nit lu moom waaw damay dugub ji bëri na wala bëriwul laa laaj dugub ji ah man gis ma dugub ji saay de ah dugub ji saa de gisuma ko man. ah kon de bu fekkee dugub ji fees na mbaa joxob joxob dugub euh, kilo moom euh, kii laa bëgg a wax euh, jox déedéet waxuma joxob dugub kilo de <laughs> nu mu tudd di kii laa bëgg a wax. looloo ne sa xol bi. déedéet déedéet déedéet. bu loo ne sa xol bi jox kilo ne sa bi. joxob dugub kilo lu muy ne loolu loolu loolu may béykat loolu war naa nekk sama sama xol. loolu waaw loolu moo nekk sa xol bi ndax fi nga taxaw nañu war ngeen a am hectare mbaam. déedéet maa juum. damaa juum yaa ko wax juumoo loolu ñaari ñaari ñaari fan yaa ngi koy wax ñaari fan. damaa juum ko yéene. damaa juum. damaa ah, ah, ñaari fan. jox dugub kilo yéen a ngi koy xadeere waxuma loolu damaa juum. wala ñaari fan yaa ngi yéene yaa ngi yéene hectare mbaam. lan bu la wax yéene boo ne yéene day mel ni man damaa naan man maa xamuma si lu ma yéene xamuma. yow kay yaa gën a xañaan kañaan leen yow kay kañaan leen nga def yow. Euh, ma ne yàlla ji mu ngi taw. waaw wala wala taw bi ceetu léegi. tawal ma ne foofu mu ngi taw wala tawatul ah taw de moom xaw nañu ko gëj gis moom. ah ah kon. waaw ah ndax xaajoo ngi góor a xaajoo leen ko bala maa def ay dogi ñaan. déedéet déedéet bu ñaan jarul ñaan. déglu ma bu fekkee xaajoo ngeen nga wax dama def ay dogi ñaan mu bu fekkee. déedéet ma ne. waaw. ñun li ku ma firlu wuñ ci yow ñun ci yàlla la ñu firlu. waaw déedéet ñëpp ci yàlla lañu wëkkal waaye lépp. waaw waaw comme ci yàlla lañ comme ci comme ci yàlla lañu wëkkal ñun suñu suñu bopp yàlla lañ ko bàyyee. waaye ñëpp seen bopp yàlla xam nga si yére mënoo ko. déedéet déedéet yow nga sa bopp bàyyi ko yàlla yow nga yow nga xam ne yaa ngi laxasu ci lii sa boo fee del la nga naan yàlla yow yàlla la doo eh, yàlla doo yéen yow kay yàlla ak yonent bi waxoo ci dara. Eh, dugub ji moom yaakaar naa ndox mënatu ko yàq ndox mënatu ko defar léegi. waaw sant yàlla ci loolu de. waaw damay dugub ji daawa damay dugub ji léegi ndox dugub ji léegi ndox mënu ko yàq ndox mënu ko defar léegi. ah dugub ji kay ndoxoo koy defar. lu ko ndox di defaree léegi. ah yow cere ji xamul ndox mën naa am. Eh, waxuma la waxi cere cere ak dugub di benn xamal lu dafa am. déet déet déet déet déet déet ma ne. dañ ne ko ku soqut woloo balaa ngaa laax dugub ruq cere nag moom te dugub lay joye ko laax te dugub lay baye ko boo fekkee bëgg nga bëgg nga original bi lañ la wax de. waaw dugub moom dugub moom dugub moom dugub moom moo la cere. waaw ma ne. waaw. xaalisu dugub mu ngi am na ku ma jox xaalis bëgg dugub de. xaalis lan. xaalisu dugub. ah ati bisimilaay. waaw bëri ko bëri ko ñaar bëri ko ñaari junni juróomi téeméer lay jëndee de la wax. bëri lan. ñaari junni ak juróomi téeméer. loolu mooy kilo ñaar fukk ak juróom. waaw kay alhamdulilah rabbil alamin loolu de la ma wax. ñaari ñaari junne lan nga wax. juróomi junne ah, waaw kay waaw loolu de la ma wax. mooy kilo mooy kilo ñaar fukk ak juróom. ëpp na dina waaye nee naa ko baax na ndax soo naa mbay moom mooy tax. waaw waaw mën naa mbaale ci yow. déedéet kee doo baax dama ne ëpp na. Ah, ah, waaw waaw caa caa. waaw xam nga dugub da ngaa da ngaa dégg. waaw déglu ma caa caa. waaw. waa xam xam nga waaye bañ la bañ la bañ la bañ la jox xaay dala wuloo. déedéet déedéet man maa waay waay. waa déglu ma rek déglu ma nañu waxtaan rek waaye waa ji def na ma waa dangaa déglu yow comme ma ko waxee nee naa ko nag ëpp na waaye baax na ndax coonaan bay bi ndax lañ ci fere matul loola xama dugub ji loolu yëppoon léegi daal xaalisu dugub bi nee na ma daal kilo bëri ko ñaar ñaari junni juróomi téeméer la mën a jëndee leen da xamal naa la ko ma ne waaw déglu rek waaw mais xam bu fekkee da nga may wax li may wax te doo ma déglu ma tontu la li ma laaj kon du sot waaw waaw waaw waaw waxal waxal maa ngi laa dégg soo soo ñaar fukk ak juróom maanaam bëri ko ñaar bëri ko ñaari junni juróomi téeméer la wax waaw loolu moom mu ne moom a jënd nee naa ko ne ëpp na waaye baax ndax mbay mi dafa xaw a am coono. waaw waaw loolu déggoon ko waxoon nga ko déggoon naa ko. loolu laa waaw. waaye na ko man bu bu bàyyee bëri ko juróomi junni du ma ko jaay. Euh, boo bañee ma jox ñoom Babary Touré ñeneen ña fi ak ak Mohamed Cissé Taye. Babal déet Mohamed Cissé Taye waaw aja Mohamed Cissé Taye euh, moom. Euh, xaj waaxu ci gannaaw ne la laay wax rek fii ba ngoon may naa la daal fii ba ngoon nga xalaat waxtaan sa xel bu fekkee baax déedéet man waxtaanu ma kenn man waxtaanu ma boo ma boo juróomi junne bëri ko bi du ma ko jaayee rek. lay waxtaan ñaari ko yow lay waxtaan yow. déedéet man nag waxtaan ma ko benn léegi yow xaalis boobu. kanaa loolu kanaa loolu yow ripo amul fa dugub. lan mooy loolu xam la ko si sama nijaay moom la ko si tuddee. dama laa laaj ndax bu fekkee xaajoo ngeen nga ne ma waaw boo xaajoowut xam na ñeneen ñu ko xaajoo si dëkk bi nga wax ma loolu la ma wax ñaari junne juróomi téeméer loolu la ma wax lay jëndee bëri ah xuma am na lo waaye déglu rek Keba. même ngarte moom nee na mën naa jënd te ngallu pare mën na koo jënd pare na pour jënd ngat. yaa doo bëgg a déglu. ah. de xaw ma déglu ma waaye waaye dama laa laaj na ma waaw man na wala man ma seeti keneen. déet waaw waaw waaw mën na wala mënul kii ah, jaayuñ ko. wàllu waaj na ko. waaw ah. wàllu waaj na ko. déet déet yow bul wax sa kool nga xam bul wax na jaay ma danga naan jaayu ma ko yow waaye bul wax ñeneen ñi. loolu kenn du ko jaay. Ah, déet bul wax kenn du ko jaay. Eh, bul wax loolu xam nga nit da ngay wax. yàlla xaar yàlla xaalisam bi réer. xam nga tey nga bañ wax loolu. yow yaa ngi yàlla xaar yàlla yàlla xaalisam bi réer. de tey nga bañ wax lool loolu. yàlla yàlla réer yàlla nañ ko sàcc. dafa am lu ma laaj léegi mu xam dagg-dagg dama seetlu sa jamono maam ya. ñu ne benn xeetu gàllal bu ñuy wax mankaane. mankaane waaw boo jëlee dara dañ la fay fekk. lañ ko tuddee nag eh, xel xalaatu di ko wax muy lu ñaaw waaw léegi nag yàlla dogal. waaw. Ah. yàlla dogal de lañ de de lañ koy dindee ñaawut de. waa déglu rek ma wax la yàlla dogal léegi. waaw ku euh, mel ni Omar Cissé mii tey am toolam. ci bunt a pegg naa ba ni ñu am si soxla. waaw waaw déedéet man waaye waxal la nga waxoon ma ne ma ne. waa déglu rek waa da ngaa wax la nga waxoon Omar Cissé moom bon mi amee toolam loolu nga waxoon wax ko waxaat ko. ma ne Omar Cissé ma romb fa. waaw. xaajoo si mboq mi juróomi saako gaare sama serem baa sama oto damm yóbbu pour lu ma def jël. waaw yàlla doo ko xomar xam lam fa def ma taxaw ba ba mm. xomar fekk ma fa ñu war ko dil ak kilifa gu mel ne man dara ji ju mel ne ju ma amee su boobu waaw léegi ñu loolu loolu loolu koy sóoraale laa la wax mankaane yu bon yooyu noonu nga xam ne maam yee Quran dafa laa la wax waaw waaw maam yi lu tax ma waxoon la na la maam yi lu tax ñu ko doon def waaw waaw mooy lan déet dama la ba ma la ne maam yi lu tax ñu ko daan def loo ci loo waxoon yow déedéet man damaa laaj dama ne la maam yi ñooñu ñu ko daan def ñu ci bëri ay ceddo lañ seen ngëm seen kii melutoon. ma ma ma ne la loolu ma ne la yow léegi yow loolu loo ci dugalee ceddo yi ceddo yi daanuñu jëlee fi jàmbur. de loolu du yëfi jàmbur de. yëfi jàmbur la yow tool bu borom bay. waaye déedéet xam nga bay kenn xanaa bay yow kenn amul. waaw waaw bay yow kenn lekk euh, am am am na waaye yow lekk yow kenn amul loolu waxi ku du dara la waxi ku jubadi la rek waxi ni koo bon la rek. ah loolu waaw waxi yàq waxi yàqkan la rek. ah loolu nga gis yow mu ngi mel ni sa magasin boobu rek. ana gars yi commencé ngeen joxe guru wala commencé guñ joxe guru si nawet. Um, jox joxoon gurum léegi joxoon gurum jamono ji ni ñi tënkuñ ko ci mbay ke kebaa. waaye déedéet damaa xam ne nawet bi nu mel ren kay bu fekkee dugub ji na na gàññ mboq mi nee na gàññ gerte gi wóoragun ma donte xaw ma ñii ne dana xam mbereng ñii ne dana xam ay posé yooyu wóor waaw gerte gerte gerte moom gerte moom mën ta ñàkk mbereng xam naa moo rësee yéene waaye nag gerte moom dana moo rësee nga teg ko ci suuf waa dé waa déglu ma tontu déglu waa waa xam nga wax nga ma. waaye boo xoolee na wax ci àdduna bi waaw fu mooy sa yéene bàyyi loolu Omar yow tamit nag. du ma ko baax du ma du ma ko baax. xam nga xam nga xam nga boo laajee laaj boobu ñu war la cee tontu kana yow laajoo ma ci mankaane gi. waaye gi li ma ci bëgg a tontu daf maa doyul. waaw bon loo ce cee laaj. lu ma ci bëggoon a xam xam naa ko ci. loo ci bëgg a xam. waaye dama ne gerte gi laa donte mboq ne. ci mankaane gi nag ci laa laay tontu mankaane gi ci laa laay tontu waaw mankaane gi ci laay lay tontu. tontu ma gi. lu lu tax yow ñàkk ngor goo xam gu toll nii. nit ku bay wa yow laa ok de. Omar teg na Omar yow tamit Omar jox ma ceeb bi ma yàlla ngor goo xam gu toll nii nit ñi bay ay bay seen tool nga dem da ca damm ñaari saako wala ñetti saako wala wala saako. waaw yow ke waay waay loolu ay kàcc la waay saako mboq mi ko noo koy lakkee. waaw ma ne mankaane lu ko nit defee ci tool yow tamit. mankaane mankaane yooyu dafa xëy Omar ma ne loolu xëy wu de. mankaane mankaane mankaane gi daal ku ko soxla boo ma wooyee la wax fa maam. dëkk bi ma dem ñu ne tool bi am na mankaane danaa sa dem ma ñaari saako yóbbu man. ah boo ca demee da lay summi sa tuba ji de rofal la baaraam ba pare fonul la ko sa bakkan nga doog a dem oh, ah ay ah, noonu lay demee di noonu lay demee di Omar Omar Omar barki nabil Moustapha da lay summi sa tuba ji la baaraam Omar Omar jox ma sa mbuntu ba pare tegal la ko sa bakkan nga mën a dem sinon doo dem Omar rusal ñoom baabali tuuti hande nawle bi rusuma kenn rusuma baabali rusuma kenn hande nawle baabali bokkut ci yow benn taalibe nga benn taalibe nga am alaaji Amadou Gueye la alaaji Amadou Gueye borom jarbaat maa waaw am na waaju lay bëggee itam koo xam ne ni moom démb déggante na ñu ko Xaadim euh, Sylla waaw maa muy ku baax mu nekk mu nekk Sandaga moom wax yàlla moom moom ku lay bëggee la nee na maa ngi koy waaw Omar nee na ko nag ah. baaxoo santoo yàlla Omar waaw ah, waaw Omar Omar lu ma gis si dugub ji doy na waar de loo ci gis lu doy waar alhamdulilah rabbil alamin yal na xam yal nañ ko lekk ci raw yàlla bu ñu ci seen dugub alhamdulilah na ko dugub laa wal yow mu tëm tool yi wala nekkoo si li nga xam ci xalaal nit ñi gis nañ ko te waxuñ ko Kéba Omar déedéet du kees Omar mbay mi da bu baaxee nañ wax baax na su bonee ñu ne waay waay waay waay a kuñ lu ñu gis ko wax dugub ji baax na ak mboq waaw nañ gis li waaw nañ gis li ñu wax kii bi nga juddoo léegi yàggul yàgg na ñetti magasin te bu ci nekk mën na dix millions. déedéet dama nga ne gerte gi laa la wax. ah gisaguñ ko kumpa la mën naa bon mën naa baax. ñun waxuñ gerte ah waaw. waaw waaw saala saala ji nga am noonu te mën naa yàqu mën naa kii di. xuma eh, baax na ñu ngi leen jàmm dëgg dëgg. waaw na yàlla waaw yàlla nañu leen di jàmm. waaw tey kan moo aaye. kan kan mooy togg tey. ah yow de moom sax su kenn togg yow. dama ne kan moo aaye tey kan mooy togg loolu sa loolu sa yoon nekkut ci wala te nekku ci xaat nga ci. wala tey da ngeen a jëlal añ. jëlal ci lan ah nit dana dem ba damm mboqam da góob dugubam da da jëlal. waaw ah, déedéet kanaan lu lu waay doon jëlal li tam fu ñu toll nii kanaan war nga ko mën a ba fu ñu toll nii caa ñun sañ na yàlla de. Ah, déedéet Omar ko sant yàlla. ah ah, ah ma ne kan moo xaye kan mooy togg tey laa li nga looy. tey tey tey man maay togg añ. déggoo lu ma laaj waxuma la kuy joxe dépassé kan moo xaye man waaw maa maa xaye maa xaye maa xaye Omar. naam. da ngay déplacé tuuti fu nga ne fa xaw a ñàkk da dama ne kan moo waay waxuma la kuy joxe ma ne pousse ma ne pousse wu ma métar fii ma taxaw laay taxaw wax ak yaa gën a bon ndoxum yow yaa euh, euh. yow keba ku bon nga yaw yow yow daal xam naa ne euh, waaw wuy ma xasaka nag doo ko xasaka ma ne wuy ma xasaka doo ko dal génne xasaka yaakaar yaakaar yaakaar yaakaar gi yaakaar gi mbay mi am waaw déglu rek xasaka xasaka doo ko génne keba ñetti magasin nit du ko xam te doo génne xasaka